mbokku téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte ak contentement di àddu ngeen di teewlu ci seen télévision Equivox ñuy dellu si tey nag fas yéene leen indil taxaw seetlu boo xamante ne bu amoon solo la jëm ci wàllum làmb ji. ñu nekk ci période boo xamante ne période gu métti la ci àdduna bi yëpp rawatina sunu réew nga xamante ne liñ leen tàmmaloon indil muy làmb ji taxaw na waaye nag teewul nag chaque instant dinañ leen indil ay video yu am am solo tey nag. ñu fas yéene daal di taxaw seetlu ci combat Ama Baldé ak Modou Lo royal boobu nga xamante ne macha allah bi mu taxawee ñëpp kontaan ñëpp am mbégte parce que làmb la joo xamante ne adduna bi ñoo ko doon xaar waaye ñu dem ba ci biir cat xaw cee dugg làmb ji bëri coow lool sunu suñu papa Luc Nicolaï eh, ñu daal di ko caabi daal di ko féete ginnaaw ñu ñaan yàlla mu dellu siwaat ci ni mu gën a gaawee bokk ci li nga xamante ne xaw na yéexal komba bi ñu ne déet ñu gis ki nga xamante ne moom mooy Willy Nicolai di doomam daal di wuuti ji licence ne combat ba dana am ñu génn ki nga xamante ne moom mooy euh, raay ba ne combat bi feeg suñu papa Luc Nicolai génnul du mën a am waaye mbokk yi balaa ñoo gën a xuus ci combat bi ñu leen di fàttali rek ci jamono ji ñu ne muy jamono Covid 19 corona bi. ministre de la santé ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi mesures yi nga xamante ne mbokk yi wax nañu ko nañ ko jéem a respecté di respecté distance yi nga xamante ne moom lañ ñu wax waaye di raxasu fu ñu toll di jéem a désinfecté suñuy loxo fu ñu toll di respecté aussi couvre-feu bi mbokk yi parce que loolu yëpp boo ko gisee mooy nañu xeex Covid 19 bi mu jóge fi kenn ku ci nekk daal di reprendre say activité loolu nag boo amee nag làmb ji dana dellu siwaat yeneen activités yi danañ dellu siwaat wala mbokk yi Ama Balde bëreeg bu fekkee Ama yàlla may na ko ci ndam mais làmb ji bu boobaa Balla Gaye est-ce que dana amati chance su nekkaat roi des arènes waaye mbokk yi moom de Ama bu daanee ñu xam ne ñu bëri ci làmb ji du bëreeg ñoom du bëreeg waa Pikine du bëreeg waa kër Balla Gaye yi du bëri Balla du bëri Sa moom Ama Baldé toujours du bëri ki nga xamante ne mooy la de waaye mbokk yi Ama Baldé bu boobaa ban komba mooy am dayo ci bu boobaa ci diggante Ama Baldé kan bëri nag Tafatine daan ko di nga ma wax Ama Baldé roi des arènes revanche am ak waaye wala nga ne ma Ama Baldé bombardier wala nga ne ma Ama Baldé giri peut-être Gris Bordeaux ak fi mu tollu ma sa nekk roi des arènes dix ans ñu ne ñaari victoire la ci am est-ce que bu boobaa combat yooyu dana nekk ay combat yoo xamante ne dana neex donc mu war a nekk combat yoo xamante ne combat yu doy waar yoo xamante ne muy suñu kanam ñu ñaan yàlla eggiseeg jàmm donc ñan la Ama Baldé war a mën a bëreel ba ñooñu nangu roi des arènes si ñoom Balla gay war kaa koji parce que addunaam gépp nekkaat roi des arènes moo ko ci soxal est-ce que dana ko nekkaat loolu nag yàlla rek ko ko xam waaye Modou mu war a nekk première sorteem en tant que roi des arènes mu war a nekk loo xamante ne bi làmb di làmb ba tey benn mbër rek lañu gis mu nekk roi des arènes première sorteem mu rate ko muy ëmmat seen parce que ñeneen ñëpp au moins am nañu benn victoire ci couronne ci couronne bi Modou mu war a bëre Ama Baldé waaw Modou bu ko daanee. foofu tamit toujours ci Balla Gaye laay ñëw est-ce que dana am chance bu bëre waat ak Modou moom Balla Gaye parce que dégg nañu Modou bi mu daanee wayu juróom bu jigéen ne Modou Lo dootul bëri Balla Gaye Balla Gaye doy na waaw Balla Gaye foofu tamit nan lay def ba jëlaat roi des roi des arènes bi donc dana metti ci moom te bu boobaa aussi fan la làmb di toll bu mutloo Lo daanee parce que Modou Lo bëri na deux fois ak Eumeu Sène combat bi neexatul bëri na deux fois ak Balla Gaye ama <laughs> bi neexatul bëri na ak Bombardier peut-être revanche ak Bombardier ak tafaatin bi nga xamante ne mësta bëri ak moom mais kodu Tafatine aussi cote bi cote tafaatin fi mu toll ci làmb est-ce que Modou dana ko jël donc mu nekk jàngat yoo xamante ne yu ama am solo la ci combat royal boobu nga xamante ne si la ñu jëm mu nekk combat boo xamante ne ñaan yàlla rek yàlla dimbali ñu ba corona bi daal di fi deñ ak jàmm mu nekk combat boo xamante ne combat buy neex la ndax Ama Baldé bu ñëw ci làmb namm nañu amaa Baldé Ama Baldé war tuus war a jàkkaarloog Modou Lo mafia bi parcelle 1 ba 26 nga xamante ne ñëpp a joxante tey loxo ñu war a jàkkaarloo yaakaar naa ni combat bu ama am solo ñuy ñaan yàlla rek combat bi daal di am ak jàmm ñëpp daal di am jàmm ñu daal di ci dem ak jàmm waaye du ñu dem mukk mbokk yi te tëjëw ñu combat bu neex a neex boo xamante ne dañ leen koy mayaat keroog stade bi daal di neex ak doole muy combat ki nga xamante ne moom mooy Boy ñaa ak Lac de Guiers mu nekk combat bu bu bëri njàngat hmm? danañ ci ñëw danañu ñëw ci Lac de Guiers ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang danañ ci ñëw aussi waaye danañ leen wax ni mbokk yi nañu respecté waat mesure d'hygiène yi nga xamante ne moom la ministère de la santé joxe ak euh, autorités yi nañuy gën a euh, toog sunuy kër nañu respecté couvre-feu yi nañuy raxas suñuy loxo respecté mesure euh, euh, distance yi nga xamante ne joxe nañ ko bu boobaa euh, danañu daan li nga xamante ne moom mooy jàngoro ji li ma doon wax sànq démb li ma leen doon wax mooy nañu xeex jàngoro bi mu deñ fi balaa ñoo dugg ci koor gi ndax bu boobaa dana metti lool su ñun parce que couvre-feu yi à partir de vingt la vingt heures six heures du matin te gis ngeen ni sportif yi rawatina mbër yi daañu entraîner ci biir ko danañu woor journée bi bu guddee ñu daal di dem géej entraîner ji ñii dem salle entraîner ji waaw bu ñu gars yi teree nit ñi ñu génn dana metti lool si nit ñi donc nañu àndandoo xeex Covid 19 bi mu jóge fi jàmm ñëpp daal di nekk ci jàmm Cheikh la woon peace. at ngi waaj a sifflé Modou Lo am na lu muy wax at bi sifflé na ñu ngi léewtoo oh taxawaay bi Modou Lo Balla Gaye Modou Lo taxaw ci axe ñu ngi léewtoo léewtoo bu diib Modou Lo tàllal na loxo bi mbaa dóor mu daanu du am ñu ngi jëm côté saaku yi Modou Lo Balla Gaye ñu ngi léewtoo après huit ans après huit ans bi ñu bëree woon revanche bi oh xooli oh, métti na round d'observation bala dagg na leewtoo bi Modou taxaw na Modou gel arrière Balla Gaye jàppul Balla Gaye jàppul combat bi métti na jàppante nañu Balla Gaye Balla Gaye jàpp na Modou Lo jàpp na flan yi ngi attention jàppante nañu combat bi day metti ngi ne ngeen bal la mais ba Modou Lo ngi balaa ngi dër balaa ngi dóor ci suuf ñu ngi xeex balaa ngi dóor Modou Lo am na ñaari ngemb léegi Modou Lo Balla Gaye jàppante nañu ñemente nañu xamoon nañu day metti action am na ñoom ñaar ñëpp a ngi taxaw kan mooy taf sa morom la que wóor na Modou koy bët wëndeelu nañu oh combat bi métti na Modou Lo sànq da doon bëtt Balla Gaye waa jàppante nañu attention ñaari sengooru Balla Gaye yaa ngi wadd Modou Lo benn loxo bi bàyyi na ko oh combat bi métti na xeex nañu sànq loxoom Balla Gaye Modou Balla Gaye mais Balla lu muy def nii Balla Gaye bàyyi na Modou Lo féete ko suuf waaw mais Balla Gaye lu muy def nii Modou Lo Balla Gaye Modou Balla Gaye daan na Modou Lo Balla Gaye daan na Modou Lo